vedet bi ñu ngi ci niveau Sonatel bi mhm. euh, ñi nga xam ni nag euh, ñoom ñooy euh, force de l'ordre yi ñoom it ñu ngi taxaw xaarandi yor seeni i gànnaay ak seeni i oto ñenn ci ay militant ñu ngi leen di seen ci bopp ko ñuy waaye amagul ay nit ñu bari nga xam ni dañ leen gisagul ci yenn côté yi mhm. moo taxit ndax nag bor bi ni yëpp pour nit mën ci jot dafay metti ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy force de l'ordre mhm. ñoom ñoo baare lépp li nga xam ni euh, cité kër góor gi la jamono ji nag euh, ñu ngi nii nii di dooray gédd cité kër góor gi euh, fi may wax ak yéen lu tol ak juróomi oto gendarmerie ak ay char de combat ñoom ñoo fi taxaw ci rond point bi mooy dispositif sécuritaire bu impressionnant. Mhm. moom moo fi mooy mooy bi nga doon wax léegi ci suba rek. waaw mhm. euh, léegi nag yoonu kii bi la ñuy jaar yoonu ONG 3D bi maanaam pour génn booru Elton Mermoz bi. après xam euh, yoon boobu la ñuy jaar pour dem booru corniche ba. Mhm. mooy yoon bi jëm ci booru bureau Pierre bi Atepa. Euh, dafa mel ni corniche bi la ñuy jël pour dem fi nga xam ni moom mooy tribinal bu Ndakaaru. yoon bi nag mën nañu wax ni. ba jamono ji may wax ak yow. Mhm. Euh, amagul embouteillage mel ni dañ ñu xalal yoon wi. Mhm. donc bu ku wéyee nii mën nañu wax ni fii ak euh, dix minutes. nga xam ne ngeen war a mën a yegg tribunal waaw mën na yegg ci tribunal waaw euh, ñu ngi ñuy xibaar ne sax kii di Mame Mbaye moom. mom yegg na tribunal ma nga ca salle ba euh, Ahmed Aydara elage Malik Gakou naka ak Habib Sy ndax xam nga Habib la fal la ñu fal président conférence des leaders bu coalition Yewi euh, Yewi Askan Wi barki Dembo donc euh, ñep yegg nañ fofu salle ba tok di xaar Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bi dafa mel ni dañu laal oto bi dafa am ñaari oto yu laalante yu mbëkkante waaw yu mbëkkante ci rompoint bi mhm. moom lañ nekk di xool ni oto Ousmane Sonko bi génn na waaye eh, Ousmane Sonko bi taxaw na waaye Ousmane Sonko moom génnul ci otoom mhm. mel ni oto bib bi moom moo daal di laal benn oto bàyyi ñu wàcc xool ba xam lan moo fa xew daal ñu dem gën a jege mhm. xam lan moo fa xew waaw waaye mën nañu jàpp ni. Mhm. Ousmane Sonko moom fi mu toog ci oto. fa la génn fa. Mhm. ay nitam ñoom ñoo. génn di xool euh, sa. Ousmane Sonko nag génn na moom mu ngi nii Ousmane Sonko mu ngi génn na léegi léegi. Mhm. moom mu ngi ñëw xool dafa mel ni. oto bib bi moo mbëkk. oto bi moo mbëkk moo mbëkk Ousmane Sonko mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi gis. chef mbaa mbaa yàqul dara ci oto bi rek. Euh, notal na ko tuuti rek. Mhm. waaw waaw oto bi bi moom moo mbëkk kii bi wàcc na Ousmane Sonko wàcc na. Mhm. am na tamit beneen oto bi nga xam ne tamit mbëkk na ci ay otoom. sama genre yooyu moom cortège yooyu moom bu kenn laalee sa moroom rek yeneen ñi ci des boo moytuwul ñu laal ñeneen ñi. ay oto biib la. Mhm. Ousmane Sonko wàcc na instant bi gaa yaa ngi dóor oto yi gaa yaa ngi dóor oto yi parce que oto. ay pikam ñoom ñoo mbëkk ay otoom. Hmm. Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ni sax euh, génn na pour xool li yàq ci ay otoom mais moom oto bi mu yëg kenn laalu ko. Hmm. waaw donc oto yi oto yeneen oto yi yeneen oto yi nekkoon ci cortège bi ñoom ñoo. laalante. waaw oto gendarmerie oto gendarme yi ñoom ñoo mbëkk. auto cortège am yi hmm. léegi Ousmane mu ngi delluwaat ci otoom. Hmm. mais wàccoon na sànq pour def constat bi wax añ ñoom. Hmm, waaw waaw doon na mbir mi nga xam ni lu ko metti la wax nag chef bi. waaye mu ngi delluwaat. mu ngi delluwaat yéeg otoom. waaw c'est ça waaye balaa muy yéeg wax na naxarlu nu la naxarlu na li nga xam ni def nañ ko otoom. wax na leen carrément nañ ko bay. mu nee moom comme que jël na décision dem. waaw effectivement nañ ko bàyyi ci jekk ak teraanga bu dem yoonam effectivement. waaw buñ ko sonal jël na mhm. décision pour dem. moom kay ndegam jotewul ak jotewul ak kenn dafa jóg ne comme yow a ma wóolu maa ngi dem nañ ko bàyyi rek mu dem. loolu la ci jàmm ak salaam. ñun tamit ñu ngi dellu suñu oto yi. Mhm. di xaarandi Ousmane euh, Sonko dafa mel ni. delluwaat waaw départ cortège bi départagul. non non bi départagul. ñu ngi taxaw ba léegi nag. Euh, Euh, naqarlu na mbir mi mhm. euh, sank gis na chef bi euh, xol ko ci bir bët ne ko nanguna dem mhm. buma ken top topp bàyyi leen sama bop mhm. jarul ngeen may sonal ba di mbëkk sama sama auto ndax ñaari cey otom lañu dal di lal auto nga xamne dañu bok ci cortège ma ngi wat parce que Ousmane wa dellool bala dellool gaaw balaay auto yi di dem bala fi yow tamit Ousmane Sonko dafa wàccaat donc il faut ma wat xol ah, ba dafa wàccaat waaw dafa dafa xool ba xam lu fa xew mais mbëkk bi taxu koo metti noonu mais comme que bugul kenn topp ko mhm. donc loolu xam naa moom moo gën a tax mhm. ndegam sax ñoom kay moom euh, chauffeur yi ñoom seen wàllu bopp sax muy ñi nekkee ci force de l'ordre yi ñiy dawal auto euh, force de l'ordre yi ak ñi ñeneen ñi nekk ci côté Sonko yi ñoom il faut que ñu gën a prudent parce que ndegam auto yi bari nañu mhm. euh, voilà il faut que ñu prudent te oto moom dafa dafa doy waar waaw waaw waaw waaw te eh, moo mooy li mu wax sànq rek. Mhm. nee na moom sagam nangu na dem wuyu ji. Mhm. muy dem yoonam eh, bu doon dañ koy top dañ ko may espace mu dem yoonam. voilà c'est ça. tranquillement wuyu ji ñi nga xam ni ñoom ñoo ko woo. Mhm, donc moom loolu loolu la jàpp. waaw effectivement te loolu mooy dëgg sax dëggam nangu na dem daal nañ ko ba. non loolu kay bi mu génnee loolu la leen wax. effectivement il a raison carrément ñëw naa wuyu ji. Eh, maa ngi dem wuyu ji tranquillement donc nañ ma bàyyi ma yegg amul lenn li nga xam ni war nañ ko def ba nga xam ni dafay indi ay coow daal. Mhm, mhm. waaw. moom euh, moom fu mu ne wàccaat na wala ma nga ca otoom toog. non yéegaat na yéegaat ah, na léegi yéegaat na léegi otoom. <clears throat> yéegaat na léegi otoom mais cortège bi ba léegi départ mhm. mais moom Ousmane yéegaat na otoom. ok mu ngi toog ñuy xaar. fan ngeen toll nii. Euh, mooy ci rond point te kër góor bi pour jël yoon bi nga xam ne. dafa jël ah, moo génnee moo génn fële ci corniche bi. waaw. Euh, mhm. pour génn pour pour dem booru Elton ba. Mhm. foofu lañ toll. ok ok jamono ji nag euh, ñu ngi delluwaat ñu nit suñu ay oto. Mhm. Euh, waaye oto yi départ guñu. waaw oto yi départ guñu. ñu ngi dellu suñu ay oto mais oto yi départ guñu. ana kay di rappeler ne. di ah. rappeler le temps que le temps que cortège bi di départ.

Euh, à part li nga xam ne choc bi la oto yi dafa mel ni gaañ yi mhm. yéeguguñu pour dem mm-hmm. taxaw nañu ci benn euh, place Ousmane sonk moom dugg na ci otoom mm-hmm. euh, sànq génn na wax na gars yi wax ju leer mm-hmm. ne leen dama am yéene pour dem nañ ma bàyyi buñ ma sonal buñ ma buñ ma buñ ma topp ba di ma yàqal waaw léegi jamono ji nag ñi nga xam ne ñoom ñooy yor sécurité Ousmane Sonko. Mhm. ñu ngi delluwaat ñoom it seen i biir oto yi pour mën a dem. continuer yoon wi. waaw mais oto yi bu mu départagul xam naa ni dinañu def ay réglages yi sew. Mhm. ñu ngi jéem a génne oto yi nga xam ne bokkul ci cortège yi. Mhm. sécurité Sonko bi ñu ngi jéem <laughs> ah, am nag am nag yenn saa yi moom dafa bëri ñoo xam ne bu genre yi amee boo deful ndànk rek am yeneen oto yu ci raax. waaw loolu la moo moo taxit ñu ñu jéem teere euh, ba nga xam ne seppi oto yi ci bokkul waaw force de l'ordre yi ñoom it euh, seen chef bi ñëw na sànq di dalal mhm. euh, gars yi Ousmane Sonko dafa mel ni dafa bëgg a génn otoom déedéet garde rapproché yi bañ nañu pour mu génn mu ngi ci non Ousmane Sonko génn na mhm. génn na mhm. ne daal nañ ko bàyyi mu dem nañ ko bàyyi mu dem ba am na yenn yoo xam ne moom comme ndegam décidé na dem daal nañ ko ba mu dem loolu moo gën a rafet waaw hmm. moom sax mu ngi wax ni na cortège yi dem hmm. euh, mu ngi wax ni na gaañ yi yëg seen oto pour ñu pour ñu pour ñu continuer ñu continuer yoon bi waaw pour ñu continuer yoon bi hmm. euh, gaañaa ngi dellu di yëg seeni oto euh, léegi kay li muy li muy ñaan rek moom mooy ñi nga xam ne ay takk der lañu war koo mën a topp fexe ba nga xam ne ñu bañ ko yàqal ay oto parce que moom nangu naa wuyu mu ngi dem avocat bi tamit wàcc na léegi léegi maître maître li mhm. wàcc na ci oto bi ndax sànq dafa duggoon ci oto Ousmane Sonko mhm. xam naa dafa duggoon pour wax ak moom mhm. euh, wàcc na sànq ci oto bi waaye mu ngi dellu si waat mu ngi delluwaat yéegaat na ci oto Ousmane Sonko waaw ndax euh, sànq ci oto boobu Ousmane Sonko rek moo fa nekkoon ak euh, garde rapproché am ak chef de protocole am ak chauffeur am léegi avocat bi maître li yéeg na ci oto bi mooy euh, mooy maître Siré Clédor li si Siré Clédor li mhm. euh, yëg na ci oto bi cortège baa ngi ñëw ndànk ndànk euh, waaye cortège baa ngi ñëw mhm. ndànk ndànk mu ngi ñëw mu ngi ñëw mu ngi avancé ngi waaw yow nga sa auto waaw waaw man maa sa sama maa ngi sama auto ok waaw kon baax maa ngi sama auto ci ay militants yi commencé nañu ñëw hmm. dafa mel ni lu ñu yaakaaroon ni yoon bi dafay gaaw waaye ñii ni ñu commencé nii moom. Hmm. doo ma ñu teel a yegg ko. waaw c'est ça moom kay. bu ci bu ci euh, yi duggee moom yoon bi dina yéex. <laughs> waaw dafa mel ni hmm. genre caravane lañ commencé def. Hmm. ndax euh, ñoom ñëpp commencé nañu jubilé te ci yoon bi presque fu ñu jàll fu ne. am na ñi nga xam ne ñu ngi taxaw naan prise donc euh, ñi nga xam ne tam ñoom ñoo yor cortège bi ñu ngi wax ni nañu def ndànk. Mhm. Euh, dem ndànk. waaw euh, ndegam cortège la moom militant yi sax nañ def ndànk parce que wóorul ak oto yi aussi. waaw wóorul ak oto yi. wóorul ak oto yi. Mhm. mais ci ginnaaw nga xam ni affaire bi xewoon na fa. choc mhm. bu ndaw bi xewoon na fa. ba léegi oto yu fa nekk bougé guñu. waaw il faut que ñu toog xool euh, euh, bu jaree bu jaree constat bu jar il faut que ñu toog xool parce que bu jaree constat ñu constaté ko aussi génnaat na avocat bi génnaat na euh, hmm. sànq dugg na ci oto Ousmane Sonko xam naa wax na moom hmm. ba après léegi génn na oto Ousmane Sonko bi taxaw na hmm. donc fi mu ne nii oto bi dafa dafa taxaw waaye Ousmane Sonko génnagul moom mu ngi ci biir otoom avocat bi moo génn dem delluwaat fi nga xam ni ci oto ba mu duggoon oto non ci oto bi nga xam ni laaloon nañ ko parce que oto bi ñu laal ba léegi ak oto gendarme bi ñaari oto yooyu bougé wu bougé wuñu fi fi ñu nekkoon hmm. léegi avocat bi dellu na foofu euh, xaw ma lan la ñu war a mën a waxtaanee hmm. mais Ousmane sonk moom jamono ji nii génnul ci génnul génnul génnul otom génnul otoom. Mhm. donc maître maître Ciré Clédor Ly moo ñëw dugg otoom wax ak moom après. waxam moom après delluwaat delluwaat ci oto yi ci oto yi ci ba ñu bëgg. fi mu amoon waaw. Mhm, mhm. waaw moom dafa duggoon ci oto Ousmane Sonko.

dafa mel ni dañuy wéyal li nga xam ni moom mooy. Euh, continuer yoon bi quoi. waaw convoi bi ñu ngi xaar ñi ki nga xam ne moom avocat bi dafa mel ni day delluwaat dugaat ci oto Ousmane Sonko. Mhm. chef de protocole bi moom it euh, mu ngi ubbi buntu bi. Mhm. pour yéeg moom it ci kanam donc euh, militant yi ñoom it ñu ngi nii en masse commencé nañu ñëw ndax amuñoon accès cité kër góor gi. Mhm. li ni mel moo taxoon mënuñu woon dugg. waaye bi ñu génnee cité kër góor gi ñëw ba ci rond bi. gis nañ ci ay militants yu tàkkoo tàkkoo yi nga xam ni ñu ngi topp oto bi. Mhm. Euh, Barthélemy jamono jii nii nag euh, convoi bi bu ngi démarré. Mhm. convoi baa ngi démarré Ousmane Sonko mu ngi ci biir oto bi ba léegi. Mhm. avocat bi tamit dugg na. waaye ni muy demee ni ni ñu commencé woon départ bi oto bi di gaaw a dem ak léegi wute na ndax léegi ndànk lañ nekk di def. ndànk lañ nekk di dem. waaw léegi oto yu newul di daw euh, yooyu daw. Mhm. mën na am bu ñu parce que boo xoolee sax ñi nga xam ne ñoom ñooy sécurité bi ñoom dañu wàcc seen oto. Mhm. Euh, daal di euh, nu mu di taxaw ci buntu ci ci ci oto Ousmane Sonko. ñuy mhm. dox ci oto bi. donc yéeguñu seen oto dañu nekk di dox ci oto Ousmane Sonko bi. ñoom euh, encercler oto bi. waaw effectivement noonu d'habitude sax noonu lañ koy defee. waaw di dox ndànk. Mhm. jamono ji nag euh, oto yi newul newuñu di daw ndànk ndànk lañu nekk di dawee. bu mhm. ñu romb fu ne am yenn militants yi nga xam ni ñu ngi koy teccul. Mhm, di ko teccul. waaw di ko moom daal nañ ko nañ ko nañ ko xàllal yoon bi rek euh, mu yegg tribunal su ko defee euh, euh, mbir mi mbir mi mën mën a leer. je pense que comme di jël na décision une décision sage dem wuyu ji. donc mhm. nañ ko ci gunge. Mhm. waaw te bañ a def dara ci yoon wi loo xamante ni dina tax dootul mën a avancer. je pense que loolu mooy l'essentiel ngir ñu mën a vider parce que. affaire wu 29 milliards u Prodac yi mooy yi la mu di programme des domaines agricoles euh, communautaires jamono ji Mambay Mame di nekk coordonnateur ba euh, mom waxone ne loxom laal na ci loubal gi mu njort ne euh, gi ñu njort ba léegi ay supposition la ci 29 milliards yooyu le tax Mambay Mbaye Niang ko yoon diffamation faux usage de faux ba ci sax injure publique donc ñu war leen a àtte tey ci kanamu tribunal correctionnel Euh, le 2 février la euh, procès bi waroon am waaye. mais euh, xam naa affaire bi dina gaaw ndax chef de sécurité ndax chef de sécurité Ousmane Sonko bi mu ngi wax ni na oto yi gaaw dem. nañu mhm. gaaw daw mhm. dem. li ñu waroon a régler régler nañ ko léegi mu ngi wax na oto yi nañu gaaw. Mhm. ñu daw dem mel ni Ousmane Sonko jamono ji yàkkamti naa yegg moom it tribunal. ndax ki nga xam ne moom mooy limousine di chef de sécurité bi mu ngi wax na oto yi nañu daw gaaw yegg.

allo Abdourahmane Rahman réseau baa nga tàmbalee gëllu guuse nag Rahman euh, Ablaye xam naa boo mënee génnee Abdourahman euh, mu ñu xool euh, réseau bi normal mu ngi woon ci booru Mermoz bi dégg ngeen militant yooyu di jubilé di yuuxul Ousmane Sonko mi jël décision ci moom dem wuyu ji euh, yoon ngir euh, ñu àtte leen moom ak Mame Mbaye Niang ci mbirum vingt neuf milliards yu euh, Prodac yi Mame Mbaye Niang googe yegg yegg na ci biir ca tribunal booba boori neuf heures yooyu la yegg bi neuf di jot sol lu weex bokk na ca ñamu fa fekk ak ah, kii di Ahmed Aïdara Malick gàkku Habib Sy naka noonu it ma nga fa ndax moom la fal barki démbo barki démbo Ndiaye président de la conférence des leaders euh, bu coalition bi di euh, yewi Askan bi ñu ngi xibar xibaar ne euh, ki nga xamanteni tamit mu di Déthié Fall bu PRP moom itam yegg na foofu tribunal yegg na fa tamit ki nga xamante modi Soxna ay Mbodj donc ñom ñep ñu nga tribunal tok di xaar ki di Ousmane Sonko yexi ma fàttali len ko Mame Mbaye Niang ma nga fa cortège Sonko bi nak genn na sank ba mu ngi ci yoon wi. Euh, di dem euh, bi ñuy euh, bi Abdourahmane di amee jafe-jafe réseau boobu ñu ngi woon ci booru Mermoz Ablaye Diop Abdourahmane jotagu leen ko waaw jotaguñu ko xam naa problème réseau bi la ak ful bi tamit sax parce que ñaare fu nit ñi bare rek réseau bi dafay tàmbalee andi ay problème donc xam naa bu ñu mënee jot kii ji Abdourahmane Diallo ngir ñu xool <coughs> yoon bi Ousmane Sonko jël ba ba muy yegg ca tribunal ab Ndakaaru

ma fàttali leen bi ñuy perdre euh, réseau bi sànq mu ñu ngi woon ci boori Mermoz génn euh, cité kër góor gi jaar xam naa ci kër Atepa bi nekk ci corniche bi la ñuy su ko ñu corniche bi dem euh, donc Rahman mu ngi koy wax sànq ndegam jël na décision dem nañu ko bàyyee ci njëkk ak teraanga mu dox ndànk dem wuyu ji ndegam jël na décision bobulé donc loolu mooy li gën am solo ci ji waaye ca tribunal boobu tamit euh, Rahman mu ngi koy wax dispositif sécuritaire bi euh, bi ñu def ca cité kër góor gi euh, boo moytuwul sax bu raw la ñu def fële ca tribunal bu Ndakaaru dugg fa doonut lu yomb donc ba tax na Boubacar Dieng suñu ndaw la toog foofu foofule mu ngi ñu koy fàttali sànq ci direct yi mu jot a def. Euh, donc Abdourahmane bu ñëwee euh, ngeen yónnee ma ko ci antenne bi ab bu tukleer yi sànq ay ca <laughs> fu nge euh, fu nge jamono ji ni ñu ngi ci corniche bi mhm. mooy booru bureau Atepaï waaw boor boobu la nekk waaye fépp bi nga xam ne romb nañ ko ku mel ni rond bi nga xam ne moom mooy Mermoz ak Dilimel ay dispositif sécuritaire bu takko takko takko takko takko moom moo fa nekk cortège bi nak mën nañu wax ni Charles Comba mo mo jiite cortège bi mhm. jamono ji ni ci euh, fi ma nek fi ñu nek ni ci euh, corniche bi mhm. ben Charles Comba moom mo nek ci kanam mo jité euh, cortège bi mhm. Ousmane Sonko mo ngi ci otoom convoi ba ngi gën gudd lu toll ak ñet ñet auto police ñom ñoo tej cortège bi Euh, fii nag euh, ci kanam Charles Komba moom moo ci nekk. ci mhm. ginnaaw lu toll ak. Euh, mais mais daal yéen a ngi dem yéen a ngi dem ci sans souci. waaw waaw ñu ngi dem sans souci dëgg-dëgg fi mu ne nii nag amul lenn li nga xam ne moom moo nekk di gàllankoor li nga xam ne moom mooy yoon bi. Mhm. oto yaa ngi dem tranquille Ousmane Sonko mu ngi ci otoom ñi nga xam ni ñoom ñooy takk der Euh, ci rond bu ñu romb bu ne dañ ci fekk ay takk der yu takkoo takku mhm. daal ci taxaw yor lu jëm ci wàllum karange gi waaye tamit ci yoon bi waaye tamit ci yoon bi mhm. euh, fii ñu ngi xool ba xam est-ce que dañuy dugg ci tunnel bi ou pas mais finalement dañuy dugg ci tunnel bu njëkk tunnel bi ndax euh, am na ñeneen ñi nga xam ne dañu jàpp ni war ñoo mën a jaar ci euh, tunnel. ci tunnel bi mais nag tunnel la bi nga xam ni tunnel bu ndaw la. Ah. mooy bu nekk. Euh, balaa mooy mooy desa mooy desante mooy des mooy descente boobu te mu mel nii euh, lu am. pont ci kaw noonu. genre tunnel yooyu waaw. waaw wetu këru Senghor. Mhm. boobu la ñu nekkee avant nga yegg Radisson. waaw. waaye du tunnel bi nga xam ne tunnel bu gudd la ndax ñi nga xam ni tamit ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom it yenn saay. lu jëm ci seen wàllum kaarange ak xeet gi ni mel dañu ciy bàyyi xel moo tax sànq ba léegi ñuy wax ba xam dañuy jaar ci tunnel bi ou pas léegi xamuñu nag euh, ba xam tunnel bu mag bi ba xam dinañ fa jaar euh, waaye li am ba des daal moom mooy euh, jamono jii nii amul lenn li nga xam ne moom moo nekk di gàllankoor li nga xam ne moom mooy convoi bi. waaw Euh, oto yaa ngi dem ni mu ni mu waree Ousmane Sonko bu lépp jaaree yoon euh, fii ak euh, dix minutes. Mhm. war na mën a war a mën a yegg tribunal nga xam ne moom mooy tribunal. Mhm. jamono jii nii ñu ngi niveau Radisson. Mhm. foofu la ñu tolloogum. mooy li ma la wax nag sànq fépp fi nga xam ne rond point la am nay takk der yu takku takku yi nga xam ne ñoom ñoo fay taxaw. ñenn ñi ñu ngi klaxonné seeni oto. ñeneen eh, ñi daal ci sàkkonte eh, ak ki nga xam ne moom mooy Sonko. Mhm. Euh, mais Ousmane Sonko génnul benn yoon taxawul ci buntu euh, taxawul ci kaw otoom. Mhm. dafa dugg ci oto bi nga xam ne. Euh, dafa dafa dugg ci biir dafa dugg ci biir rek toog. waaw dafa dugg ci biir rek toog. Mhm. nekk ci oto boobu noonu ak ñi nga xam ki nga xam ne moom avocat am. mu ngi sol benn yére tailleur bu bleu def casquette.

tout à fait normal euh, euh, Ousmane Sonko quoi que l'on puisse dire euh, du n'importe qui donc amna ay nitam amna ay farandom amna ay soppé donc c'est tout à fait normal que buy dem ñu assister ko ci yoon wi su ko défé mu dem ci njekk nim mu ko bëggee wuyu ji yoon wi ko wolu waaw moom sax sànq bi mu wàccee loolu la daal di xamal takk der yi. effectivement il a parfaitement euh, raison waaye tamit nga xam ne moom mooy njiitu takk der yi moom it euh, wàcc na ñëw ñu waxtaan. Mhm. Euh, comme ñaari kilifa ci la kenn ku nekk décidé pour continuer yoonam. Mhm. léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police ñoom ñoo jiite cortège bi ñoom ñoo tëj tamit cortège bi. Mm-hmm. donc euh, loolu tamit euh, ngir euh, kaaraange Ousmane Sonko comme sànq ni nga ko waxee Ousmane Sonko nekkatul n'importe qui donc ci lu jëm tamit ci wàllu kaaraangeem surtout lu mel ni war nañ ci mën a bàyyi xel donte sax moom it ñi nga xam ne ñoom ñoo sàmm kaaraangeem ànd ñoom te tey tamit ñoom it bare dafa bari. ay nit ñu tàkkoo tàkku dugg ci biir ba xam euh, de toute façon euh, comme Boubacar mi ngi fa rek am naa yow moom boo tem nga dugg da dugg bi day jafe ci yow ah, man kay gunge laay def <laughs> da ngay gunge boo yeggee ca buntu ga rek dëpp <laughs> gunge laay def kay mooy li gaañu di wax rek da ngay mel ni kuy gunge seet moo kuy gunge seet moom ci buntu bi ngay yem. ci buntu bi ngay yem. waaw. léegi fan ngeen toll nii. ñu ngi ñu ngi ci rond point université bi IFAN. ah ok ok. waaw ñu ngi IFAN léegi eh, niveau boobu sax la ñu ya, yegg eh, mooy li ma la wax sànq nag rond point boo mun ci romb ya. ku ne da ngay fekk ay takk der yu tàkkoo tàkku mais mais mais klaxon klaxon may en fond sonore ñan la. Oh, waaw ay ay moto ay moto la. ah ñu ok ok c'est vrai que aussi journalistes journalistes li ci ëpp ci situation mais mel il préfère jël moto. amné ne moy moy waaw parce que lu ci gën a bëri ñoom surtout li nga xam ne moom moo ci internet yi. Mhm. tamit dañuy ça yéeg euh, yéeg scooter mooy euh, scooter wala Jakarta mooy gën a gaaw ci ñoom. waaw loolu la euh, waaye tamit des fois ñu daje ak ay oto. Mhm. yi nga xam ni ñoom ay euh, ñooñ Ousmane Sonko lañu wala boog ñu far ak Ousmane wala boog ñu bëgg Ousmane Sonko. ay sympathisants di di seeni oto. Mm-hmm. yooyu tamit euh, am na ci lu bëree bëri am na ci ay taximan ay particulier effectivement donc euh, loolu tamit ñu ngi daje ak ñoom jamono jii nag ñu ngi wetu teeru bi. Mm-hmm. léegi ñu yegg fi nga xam ne moom mooy teeru bi. Mm-hmm. donc wax dëgg aw ci ngeen jaar ci gannaaw. waaw mhm. corniche ba noonu la ñuy jaar. Mhm. Euh, dañuy romb bureau Babacar Fall xam naa <laughs> ne bi noonu. loolu la ñuy jaar. mais ba fii daal euh, euh, c'est bon. ba fii daal amul lu nit mën a wax. Mhm. ba fii daal amul lu nit mën a wax oto yaa ngi dem tranquillement ok oto yaa ngi dem tranquillement nit ñaa ngi taxaw ci mbedd mi di xool cortège bi. yéen ñenn ay liggéeykat ay mag ay xale taxaw. di xool. cortège bi nag cortège bu gudd la ay oto yu bëri la ndax amoon ay oto yu donc xaarandi jiitu je pense que voilà waaw ngelaw li kay bëri na yow mii sax sa réseau baa ngi tàmbalee demaat ngelaw li moom yenn saa yi tamit du ñàkk xam nga instant bi nii moom climat Dakar bi tamit waaw ngelaw ak poussière ak sedd kay awma ci biir oto bi ci kaw ci kaw laa e. ah ci gannaaw ci kaw waaw pañe salaat bi waaw hmm na waaw ci pa te te pañe salaat nga ko mën a tuddee <laughs> ah ab séeréer ngay waxal de <laughs> naa ne <laughs> sant sant di wax tudd pañe salaat moom ci kanamu séeréer waaw demati Abdourahmane Abdourahmane voilà c'est ça euh, affaire bi mooy xaw a déconné waaye ndingam yaa ngi ci gannaaw pick-up bi moom euh, ci kees bi lool loolu moo koy moo koy waral donc xam naa j'imagine léegi ngeen war a dugg ci tunnel bi tunnelu Soumbédioune bi. Mhm. Da nga da nga da yore da nga yore écouteur. Ah yoro écouteur waaw. Hmm? non <laughs> non baax dama da nga yor écouteur ba ma ne tax micro bi xawa souri sa gemmi non non bari rek. mooy li la wax mhm. mhm. mu ngi ci biir otoom. génnul. jàpp euh, njàmbur waaw mu ngi toog mhm. euh, xam naa boo duggee ci tunnel bi moom ndax tunnel bi moom parfois réseau bi dafay daw. <laughs> Mm-hmm. waaw mais ñu ngi nii di waaj a dugg ci tunnel bi. ci tunnel bi waaw. waaw tunnel bi nag waruñu koo mën a yàgg. Mm-hmm. bu ñu yàggee ba yàgg benn trente secondes la maximum une minute. ngeen romb. waaw ñu romb tunnel ba am na ñu taxaw nag ci kaw. la moto yi la moto yi. moto yi moom un peu plus sonore. allo. waa xam naa dafa dugg ci biir euh, tunnel bi Abdourahmane looloo tax euh, réseau bi xam naa loolu euh, tunnel bi moo tax réseau bi di xaw a di xaw a di xaw a déconné Abdourahmane léegi dañ dañ lay téye rek le temps que ngeen di génn tunnel bi kon boog mbokk yi mu ngi noonu Ousmane sonk génn bu yàgg këram ba mu ngi nii di dugg ci tunnel tunnelu Soumbédioune bi di romb euh, donc euh, fi lekk quelques minutes en principe war na mën a yegg euh, ci tribunal Ndakaaru ci procès bi dox diggante moom njiital Pastef ak kii di ministre tourisme di Mame Mbaye Niang ci mbirum 29 milliards Prodac yi ñu war leen àtte tey ci kanamu tribunal correctionnel bu Ndakaaru fàttali ne procédé bi le 2 février lañ ko njëkkoon a nas waaye mujjul woon a am dañ ko renvoyé woon ba tey ndax Sonko demul woon. ndax ne jotul benn citation comparaître donc Sonko tey ba mu jotee euh, mu ngi noonu ci yoon wiy dem léegi sax ñu war a romb euh, rajo Futur Média ngir yegg tribunal ab Ndakaaru foofu moom ma Mbaye Niang mi nga xamante ni moom la seqal euh, mbir mi Manga fa yegg na ci boori 9h euh, euh, naka gunge naka noonu it Ahmed Aydara Manga fa elaj malik gaku, Habib Sy mi nga xamante euh, président conférence des leaders bu coalition yewi Askan bi président bu bees bi fa it ki nga xamante ni moo di ak Abdourahmane ngi tunnel bi. ñu ngi RFM. waaw yow kay da ngay dugg tunnel bi rek déggatuñu dara. maa ngi di seen <laughs> yéen a ngi ñuy romb ne ko yéen a ngi ñuy romb. seen naa directeur mu ngi ne. <laughs> seen naa directeur. waaw directeur waaw. maa ngi lay ziar ak parfumé yi <laughs> bi ñu ngi nii RFM. waaw. gis nga yoon bi fees na dell. Mm-hmm. Ousmane Sonko moom mu ngi ci oto euh, GMC bi. Mm-hmm. toog jàpp njàmburam. toog jàpp njàmburam. effectivement. Medina génn nañu. Mhm. taxaw ci corniche bi. Mhm. ñi di naan animu animu animu. <laughs> waaye ñu déglu rajo bi dañu xam ne ci benn oto ci yéen fii la <laughs> dañu ko bëgg a gis ndeysaan. <laughs> waaw ñu ngi naan animu animu waaye moom mu ngi toog. jàpp jàmburam jàpp jàmburam. waaw waaye du yàgg dara ñu yegg fi nga xam moom mooy euh, tribunal ba. Mhm. du yàgg dara ñu yegg fi nga xam ne moom non bu yoon bu yoon bi libre kay moom daanaka yegg ngeen non yoon bi kay libre na mhm. ndax euh, convoi bi mhm. euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy waa police ñoom ñoo yor convoi bi donc oto police moom ku mu jiite ku ne xam naa kenn ñemewul taxaw sa kanam ah, waaw moo taxit yoon bi <laughs> xàllal nañu yoon bi c'est la c'est la force publique waaw mhm. moo tax xàllal nañu yoon bi léegi ñu ngi jéem a xool ba xam dañuy jaar booru mosquée omarienne bi pour wiiri je pense que je pense que mu dem mu dem yegg moo moo gën su ko defee ñu lijjante sen lolu permettre aussi nit ñi ñu mëna top topp yoon wi continuer vaquer ji à leurs occupations ndax amna ñeneen ño xamanteni ne leneen a leen yëkkati lu urgent. waaw mais dafa melni boru mosquée omarienne bi lañuy jaar ndax auto police bi non la jaaré hmm moy ci kaw. na ci kaw ok jël tunnel bobu nonu moy mhm. boo yeggee ba maison de la. day jaar day jaar romb romb euh, porte du millénaire après dem. waaw waaw foofu la ñuy hmm or du millénaire la ñuy jaar jaar beneen côté rëbës bi mhm. euh, jaar kanamu prison mhm. normalement boor boobu la ñuy jaar prison la effectivement daal di yegg fi nga xam ne moom mooy euh, mhm. police bi yëpp taxaw nañu di xaar convoi bi nag comme ni ma leen ko waxee sànq convoi bu gudd la waaw convoi bu gudd la waaw oto bu oto yu bari la hmm. oto yu bari nañ waaw maintenant oto yi nag dañoo xamul ndax dañoo bokk ci convoi bi wala ñuy doxi seeni soxla la déedéet déedéet fii oto bu nekk ci diggante ñaari oto policier rek ci convoir bi nga bokk ah d'accord waaw ndax euh, gars yi jëloon nañ matuwaay ba nga xam ni bépp oto bi nga xam ni bokkul ci ñuy dem ci tribunal bi do doo doo dugg ci cortège bi waaw fexe nañu ba génnee la ci hmm, hmm. ndax euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo yoroon affaire sécurité u Sonko ñu mhm. a xool yan oto ñooy romb ak yan ñoo du romb ñu ngi exactement ci euh, niveau mosquée omarienne yi mhm, mhm. foofu lañ nekk convoi bi taxawagum na xanaa da ngeen kon da ngeen wàcc da ngeen wàcc corniche bi après pour jaare ci gannaaw euh, waaw pour jaare ci gannaaw donc mooy booru rëbës bi la ñuy duggee waaw effectivement waaw waaw instant bi nii nag euh, dafa mel ni force de l'ordre yi ñu ngi jéem a xool ba xam oto yëpp la ñuy bàyyi ñu romb wala dafa am yenn yi nga xam ne ñoom la ñuy saabu. de de toute façon oto yooyu yëpp yi nekk ci cortège bi yëpp duñ duñ mën a dugg tribunal. ah waaw mais jamono ji nag ñu ngi ci cor ci ci corniche bi la ñu nekk ko. Mhm. ci euh, mosquée omarienne. Mhm. foofu niveau boobu la ñu toll. cor euh, convoi bi dafa taxaw. convoi bi waaw dafa taxaw. convoi bi dafa taxaw mais Sonko mu ngi ci biir auto bi rek toog jàpp njàmbur Sonko moom mu ngi ci otoom. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo yor sécurité am ñu ngi taxaw ci peggu auto bi. Mhm, mhm. Euh, encercler auto bi. c'est normal ñoom saa yu oto bi taxawee rek dañuy wàcc. Euh, taxaw vigilant. Euh, Rahman Ba jot nga ndiki <laughs> waaw. waaw kon baax na. naan naan naa café Touba. Ah, waaw kon baax na noonu la. <laughs> waaw <laughs> waaye wala dafa dafa am loo ma a yónnee. ah ah, ah. a yónnee. ah waaw war na mën a nekk de. wala wala wala wala sunu directeur. a ah, waaw directeur de woon sànq romb naa ko. <laughs> waaye gisu la. waaw. <laughs> Ah. d'accord kon yéen a ngi taxaw ba léegi. non léegi bougé nañu. bougé ngeen euh, oto yaa nii di dem tranquille mhm. oto yaa nii di dem. ñu ngi ci niveau mosquée omarienne mhm. pour war a mën a jàdd dem booru rëbës bi jaar booru buntu prison dem fi nga xam ni moom mooy euh, tribunal mhm. instant bi euh, mooy mosquée omarienne yi bi waaw waaw mooy wetu daaf en mhm. face daaf boor boobu lañu nekk mais oto yi ndànk lañu nekk di. ndànk lañu foofu moom foofu moom ñu daw lu gaaw. waaw oto yi foofu moom duñu mën a daw lu gaaw. ndax dafa mel ni moto yi gars yi dañuy bañ moto yi jàll. Mhm. <laughs> Eh, nañ bàyyi <laughs> nañ bàyyi moto yi suñu naataango yi nag ñu liggéey dañu bloqué moto waaw suñu bàyyi moto yi suñu naataango yi ñu liggéey. moto yi moto yi dañ leen bloqué. <laughs> Mhm. mais ndegam fi ngeen fi ngeen comme fi ngeen toll soreetul ak tribunal yaakaar naa ne journaliste bu ñu fa téye tamit war nga mën a wàcc jël sa carte wane ko ñu bàyyi la nga dem am na effectivement effectivement donc ku ñu fa mun mën nga wàcc rek utiliser ta carte de presse nga dem ci dem ci yenn pick yi mhm. mais lépp li nga xam ne moto la du du jàll mhm. instant yi nii oto yi lañ nekk di bàyyi ñu jàll te sax moto yi sax nag faf Abdourahmane dafa wóorul ci cortège yu mel nii dara waaw wóorul moom wóorul moom hmm, wóorul wóorul moom hmm, hmm. wóorul instant bi nii poli yi euh, bëgguñu oto yu bari dugg Mm-hmm. dañuy def ndànk-ndànk pour oto yi dugg. instant bi nii benn trois lots de véhicules la bay. la ñu gum ñu dugg la ñu libéré. Mm-hmm. Euh, ñooñu dem. Mm-hmm. benn lot de trois véhicules la ñu bokk na ci woto Sonko bi. non non oto Sonko bi maanaam moom ñooy bokk ñooy ñooy man pour ma bàyyee la ñuy bay Sonko. <laughs> ah kon kon bokk kon de am nga sànc tey. waaw sama oto ak oto Sonko ñoo bokk loo. <laughs> waaye dafa mel ni oto sonko bi dafa taxaw. sonko otoom bi dafa taxaw. muy muy muy bàyyi gars yi romb dafa mel ni dafa bëgg ñëpp romb balaa moom muy romb. Mhm. il veut s'assurer que ñi mu àndal ñëpp ñi mu àndal ñëpp dugg nañu waaw. waaw moo tax instant bi nii moom. ah loolu de loolu de eh, kilifa de du du bàyyi gannaaw njabootam. ah waaw <laughs> dafa mel ni de moom. loolu la wolof lépp. loolu daal la def. <laughs> Ah. Euh, dafa. dafa dafa seere bay oto yi mhm. bañ ñu tëj convoi bi. Mhm. waaw xam naa dafay bañ mu jàll rek gaay mhm. donc euh, ci loolu dafay bàyyi ñi nga xam ni ñoom laa àndal. waaw ñu njëkk ñu moom muy dugg. waaw finalement bàyyi bëggul ak man. donc bokk mag moom bokk ñu <laughs> dañ la dañ la seppi ci loo. <laughs> ma seppi <laughs> yow kay comme daanaka gunge gunge gunge moo la yëkkati woon te gunge ba ba mu yegg. waaw. <laughs> daanaka li ci des li ci des bareetul après la ca biir dañ ci Boubacar Dieng dinañ ci lañ ciy àndal. waaw te xam naa ne ba Boubacar sax dina compliqué parce que mu ngi ci si biir salle ba. te xam nga kenn du nekk ci tribinal di utiliser sa téléphone. moom bu ko ah, defee ah. alkaati yi meeb la teg la fële ca biti. non non bala may jox Boubacar Lengue day fekk mu leer ma ni Ousmane dugg na. dugg na ca biir ya. waaw. waaw su ko defee mission mission su ko defee mission bi doog yegg. waaw <laughs> waaw gunge bi day mat. ah waaw ndegam jóge si te si te jóge jóge nga si te kër góor gi de ba fii. waaw rassure toi ko dugg na nga doog a coupé. waaw parce que damay bañ ñëw ba gunge ko ba ci bunt bi. Hmm. mu naan du dugg dellu. <laughs> ah non non boobu moom boobu moom dootu ko dem ndegam ñëw na ba ah. foofu moom. après ma ne dugg na ñu naan ma dee dugg duggul nit mu ngi ci biti <laughs> loolu <laughs> euh, otom baa ngi ñëw mhm. na léegi léegi euh, jamono ji nag ñu ngi euh, ginnaaw mosquée omarienne bi pour mhm. dem booru prison bi donc mhm. ñu ngi ci koñu rëbës yi mais mais moom otoom dem na ah ma ne mais même moom otoom dem na waaw otoom bi ñëw na waaw otoom baa ngi ñëw bokk dugg na ci gars yi ñu ngi génn euh, waa koñ bi ñoom it euh, waa Rëbës am na ci ay nit ñi nga xam ne ñu ngi génn. Mhm. di teccu di wax président Sonko. donc euh, léegi ñu yegg fi nga xam ne moom mooy tribinal bi. tribunal waaw. jamono jii nii ñu ngi ci koñu Rëbës yi. Mhm. mooy koñ boobu nga xam ne dafa jëm directement ba ci miiru prison bi. Mm-hmm. nga xam ne dangay ngay jàdd benn yoon rek continuer yegg tribunal. daal daal di dugg. waaw daal di dugg foofu tamit euh, ci tribunal bi xam nga am na tamit ay barrières. foofu mm-hmm. tamit ñu ngi xaarandi ñaata oto la ñuy bàyyi ñu romb. Mm-hmm. ndax euh, mooy li la wax rek convoi bi convoi bu gudd la. donc euh, nekk na mbir mi nga xam ni du yomb du yomb. mais des euh, policiers yi lu wax la Le euh, service digital bu GFM daf lay gungé parce que li ngay wax ni koy en direct ci euh, RFM l'officiel. ah ok ni nga koy waxé ni ni bu njital parti Pastef li di mhm. ni nga xamé non nga topé ci mhm. lépp bu ñu ci Facebook bi ci live bu RFM. l'officiel dañ ko waaye xam nga nag euh, togg moom. Mhm. dafa am yu mu yàndal maanaam tey. waaw boo ca nekkul di wax image yi doo am solo. waaw waaw moo tax yow yow sa tànk tànkam fu mu dugg dugg fa rek. Mhm. bi ma lay dégg kër cité kër góor gi nga ànd ba ba ba de justice Lat Dior laa xam ne du mbuur rek nga miin. loolu <laughs> loolu loolu baax na parce que fi mu nekk nii. waaw Sénégal gi yëpp yow la ñuy déglu. ndax li ñu bëgg a xam mooy. ni ni ni ni, ni mambay ñang dugg ci tribunal ak ni ousmane sonko kerem kërëm ba dugg tribunal mhm. donc lool nak andando bi ci wër moy rfm waaw deug la jalo gur gur lu ci rek yow yow ndéké ak añak lepp ma la ko yoreel jërëjëf Ndiaye. <laughs> ay ci kon abdourahman fo tollu euh instant bi ni ñu ngi euh, prison ba. Euh, prison bu rebeus bu rebeus ci bopp koñ bi non moy bo génné bo duggé euh, ci koñu rebeus bi. Mhm. pour euh, dem booru prison bi euh, jubali yoon bi jëm booru corniche ba nga xam ni da ngay jàdd benn yoon rek pour yegg fi nga xam ni moom mooy tribunal mhm. fi mu ne nii nag convoi yi dafa taxaw euh, convoi bi dafa taxaw bi xaar ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mais mais Abdourahmane waaw fàttalil nit ñi fàttalil militants yi fàttalil sympathisants yi fàttalil sénégalais yi ne miiru tribunal day maase Euh, waaw waaw bu ñu ko mënee jege nag moo moo moo wóoruma ndax branché nañ comme déet waaye def nañ fay dispositif yoo xam ne. waaw euh, sori ko daal mooy li waaw sori ko moom mooy. lu gën sori ko daal mooy liggéey. Euh, mhm. mur yi dafay euh, dafa am ay fiilu courant yi nga xam ni dañ ko ci def. Mhm. te fiilu courant yooyu luy day maase comme ni nga ko waxee sànq. bu doon mbir mi nga xam ni lu mat a maytu la. Mhm. Euh, jour bés boobu rek maa ngi ci doon waxtaan ak Ibrahima Diame. ma ne ko dañ ci war a def communication bu ngante ngante. nga xam ni dañuy xam ni képp ko fay ñëw nga war a mën a moytu ndax lu. fi nga xam ne ay mbooloo dinañ fa daje wala ñenn ñi nga xam ne ñu mel ni sama genre gi foo leen fekk ñu ngi teg seen loxo ci ay fiil ak ak ay mur mhm. loolu moom dafay dafay doy waar léegi pour askan wi nga xam ni dañuy ñëw tribunal di mhm. déglu rfm jamono ci ni nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci muru tribunal bi euh, mhm. ndax am na ci courant yi nga xam ne ku moyul mën na la maas donc loolu lu mat a bàyyi xel la euh, mohamed jërëjëf euh, bi ñu fàttalee loolu ndax euh, tamit euh, war a mën a ñëw seetaani procès ba noppi mu am yenn yi nga xam ne ñaanuñu ko yàlla war fee mën a xew lu lu doy waar la ñun nag comme que suñu rôle moom mooy sensibiliser informer ak euh, sensibiliser askan bi ñu fàttali leen loolu miiru tribinal dafa am ay fil yi nga xam ne ay filu courant la mhm. nga xam ne genre ay grillage lay doon mais ku ko laal dangay ngay. am dafa am décharge électrique. dafa am décharge électrique. comme niñ ko waxé euh lolu mo waral buñu né bu nit djégé tribunal bi wala boog bul euh fexel ba bul lal dal ci ci mur bi bo mënul am fexé pour jaal ci buntu bi dugg euh, bu la dara jaral nga lal mur bi wala fi li nga xamni mom lañu mom mo nek ci mur kii jamono ci nak euh, ñu ngi tollu euh, tollu ak miru 100 mètres bi waaw ñu ngi ak 100 mètres bi jamono ji ji Euh, dispositif sécuritaire bu. mais mais miir bi may gis miir bi rek daa raglu. waaw waaw miir bi waaw. miir bi rek ça fait peur. non non non mais c'est vrai yàlla nañu yàlla nañu yàlla defal jàmm ba bu ñu am ak yoon. amin amin yàlla nañu yàlla taxaw ba bu ñu xam nu nu nu nu barab yu mel nii mel. maa ngi gis ci live bu RFM bi. Mm-hmm. miiru 100 bi. waaw xam nga di fa romba ko rombaat xëy na da ngay nekk ci yitte ba doo ko bàyyi xel mais nga mhm. jàkkaarloog image nii mhm. di ko xool waaw képp koo xam ne sunu borom teg na la nattu nga nekk kaso yàlla na ko sunu borom teggi amin te ñuy moytu nag di def lu ñu fay dugal amin amin waaw xanaa xamoo ne Abdou seytaane mi ngi ci biir nit ñi di dox dëgg léeg nga gis ñaar ñu wàcc xuloo ci kaw taliba ba kenn ka sonal morom ma mhm. ñu mujjee ci yoon bu ñu taxawee ci kanamu juge ba ñëpp dañuy rëcc Mhm. loolu nag li koy maye mooy di moytu seytaane. dëgg la kaso neexul de Abdou. waaw doy na waar de. kaso neexul de. yàlla na doon sunu kump. amin waay amin amin fu ngeen toll ngeen ne. Euh, waaw instant bi nii euh, léegi ñu yegg tribunal ba sànq ci euh, rëbës lañ tolloon ci prison ba. d'ailleurs mhm. am na ay pénitencier yi nga xam ni sax ñoom it lu toll ak juróom ci ñoom taxaw ci bunt bi di xool. Mhm. convoi bi. man sama oto bi mu nekk yegg na miiru tribunal bi mhm. oto Ousmane Sonko baa ngi ñëw ci ginnaaw mhm. moom oto Ousmane Sonko bi moom mu ngi exactement ci miiru euh, euh, cent mètres bi mhm. moom ci niveau boobu la tolloogum waaw oto baa ngi oto baa ngi ñëw ay avocat am ñenn ñi ñoom ñoo nekk juste suñu ginnaaw ñoom ci benn x cinq lañ nekk Euh, kenn ci avocat mi tamit euh, moom moo nekk ci biir otoom bi. Hmm. moom euh, njiitu Pastef. léegi lu des pour ñu yegg tribunal bareetul. ay minutes la rek. waaw ay minutes la léegi dañuy xool ba xam est-ce que ci porte bi nii la ñuy dugg mooy porte bu. jàkkaarloo ak corniche bi. Hmm. wala hmm. boog. porte bu mag ba fële ci kanam. bu mag ba fee. mais li ma gën a njortu mooy ku moyul porte bi nga xam ni. moo jàkkaarloo ak corniche ba foofu la ñuy dugg. Mhm. ndax euh, am na ay gendarme yi nga xam ne taxaw nañu foofu. Mhm. te oto police bi nga xam ni moom moo yoroon suñu convoi bi oto boobu taxaw na ba pare. Mhm. Euh, ñi nekkoon ci policier yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci oto boobu euh, ñoom it wàcc nañu. donc dafa mel ni Ousmane Sonko ci. porte bi nekké ci boru corniche corniche bi moy porte bi fété ci gannaaw ni waaw mhm. porte bobu lay dugg instant bi ni wàcc ci auto bi auto mhm. bi ma nekk ma ngi delu touti andak auto uh, bi nga xamni fofu foofu Ousmane Sonko nekk mhm. ma jege auto bi nga xamni Ousmane Sonko foofu la nekk mais dafa melni dafa melni Ousmane Sonko dafa changer auto oto bu mu liggéey waaw loolu loolu ci otoom waaw ci oto bi mu njëkkoon a nekk daal hmm. non nekkatul waaw wàcc na ci yenn suuf wàcc na léegi yegg na ci yegg na ci ah non non mu ngi ci GMT mu ngi ci biir otom bi ba léegi waaw mu ngi ci otom hmm. mu ngi ci otom bi mu ngi ci otom bi oto baa di di Ram. Hmm. instant bi nii dafa dafa taxaw ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, sécurité am bi euh, encercler oto bi oto bi ndànk-ndànk la nekk di demee mhm. ndànk la nekk demee ndax euh, oto yi ne ci kanam tamit dañu taxaw oto yi ne ci kanam dañu taxaw waaye jamono jii nii mën nañu wax ni yegg nañu ci miiru tribunal miiru tribunal bi je de la presse an sa carte sa carte presse nationale mu ngi nii Barthélemy instant maa wax ak bi ça c'est pas la presse nationale instant bi mais ça non non non non non non oh Abdourahmane sori leen rek sori leen dëgg naka bu mën nga leen mën nga sori Abdourahmane ma sori rek sori carte presse maison ko waaw donc du coup waaw c'est ça mais bu ñu la nee bu ñu la nee sori rek nga sori leen. Euh, yoonu jàmm soriwut. ma mu xaar ma jox ko sama carte ma xool ba xam. <laughs> alkaati yi day moom. <laughs> Euh, léegi kon euh, li ci def xam naa ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Boubacar. Boubacar waaw ma ca biir. Sonko moom wàccagul otoom ba léegi. non Ousmane Sonko wàccagul otoom. wàccagul otoom. Mhm. Ousmane Sonko moom wàccu wàccugul wàccugul otoom. d'accord waaw donc du coup euh, euh, mën nañu wax ni euh, comme ni ma ko waxee sànq. Mhm. moom ba léegi mu ngi ci otoom. Mhm. wàccagul ay cortège bi dafa. dafa taxaw mhm. waaw. mais xam naa formalité yi la ñuy def rek pour mu dugg ci biir. waaw. waaw mais otoom bi moom daal ba léegi dafa dafa taxaw. fi mu taxaw la taxaw. waa fi mu taxaw la taxaw maa ngi nii di leen di leen seen. Mhm. xam naa dañuy bañ ñu ñu dugg ci ci biir tribunal bi noonu. Mhm, effectivement waaw. mais mën nañu wax ni euh, Ousmane Sonko ba léegi wàccagul. mu ngi toog jàpp mu ngi ci otoom. Mhm. Euh, mu ngi ci otoom euh, tamit ñoomit ñu ngi seen biir oto. léegi dama xamul lan la ñu nekk di xaar. oto yi daal dafa taxaw mais li am ba des moom mooy porte bi nga xam ni moom mooy. porte kii bi lay wàccee. mooy porte bi ci gannaaw bi ci corniche bi bu ci corniche mhm. porte boobu lay duggee. Mhm. Euh, foofu tamit am na ay takk der yu takkoo takk yi nga xam ni. Mhm. ñu ngi taxaw foofu di xaar. Euh, waaw xam naa Abdourahmane waaw dañ lay bàyyi nga suufle un peu. waaw euh, le temps que Abdou Thiam dugal yenn ci ay publicité d' accord après ñu dellusiwaat jëlaat ci antenne bi bu duggee rek ñu jëlaat la nga confirmer ñu ko d' accord. d'accord ñu bàyyi la nga nga nooyi tuuti kon boo mbokk yi jërë ngeen jëf boobaak léegi 9h ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun euh, Ousmane sonk ba ba ñu jógee euh, këram ca cité kër góor gi yoon wi mu jaar ba noonu euh, daanaka ma nga yegg na tribunal dugg rek a ko dese mu war a nag ñu war leen a atte moom ak Mame Mbaye Niang ci mbirum 29 milliards yu Prodac yi tribunal correctionnel bu Ndakaaru war leen a atte Mame Mbaye Niang moom yegg na bi 9 di jot yegg na ma nga saal ba Euh, sol lu weex Ahmed Aïdara gunge na ko Malick gàkku naka noonu ak kii di Habib Sy muy njiit lu bees wu conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi Déthié Fall bu PRP naka noonu it ma nga ca salle ba